أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرايت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرايت إن كان على الهدى أومر بالتقوى أرايت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالنسبة auzubillahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaan rahim jërëjëfa borom tuuba aski borom tuuba ci borom tuuba borom tuuba moroomantewul ñu ngi fii ci tuuba mu taxaa jaxate moom suñu am sutu jaxate ñëwoon tey ji fekk ko fii ci daara ji bëggoon ko seetsoon ko fii ci daara ji mu leeral ñu lépp li nga xam ne moo nekk ci daara ji ak lépp li nga xam ne moom la fi jiite ci alxuraan yi nga xam ne moom lañ xam ci daara kaamil ak ci jumaa ji tey jii ñu ñëwoon fii ci këram fekkoon ko fi ak Saxum Touba l'officiel fas yéene cee ànd ak yéen ngir mu leeral leen lépp loo xam ne moom lañ yor ci daara moom la yor ci daara ji ak li nga xam ne moom la jiite ci daari kaam ji ci jumaa ji ñu xam ne ngir nga xam ne daanaka doon na loo xam ne lay jàng ay limi kaamil yu baree bare ci jumaa ji mu koy def bés bu set te bu ko defee ba noppi day delluwaat ci kër poppam gi nga xam ne moom moo ko bopp moomal boppam dem di fa jàngale ji waat alxuraan tey jii nag ñu fas yéene ànd ak yéen won leen loolu nga xam ne moom la fas yéene di dundal comme ni ko mag ñi daan dundale di ko dundal comme ni ko sëñ Saliou joxe woon mu jiite li nga xam ne mooy daari kaamil ji ci jumaa ji kon tey ji ñoo ngi fii ci këram di leen nuyu bu baax a baax yéen ñi ñuy seetaan Saxum Touba l'officiel seetu murit yi sëñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu jaxate sëñ bi tey waa Saxum Touba ñoo fi ñëwoon. seetub murid yi. ñëwoon fi tey àndoon ak yow. ngir liggéey bu mag bi nga xam ne moom la la yàlla suñ borom teg ci say loxo. muy jiite alxuraan mii nga xam ne moo nekk ci daaray kaamil ji. mu nekk sa loxo. nga boole ko yor daara ju mag ci biir dëkk bi. muy fii ci Touba jànnat. tey sëñ bi boo ñu bëggoon leeral ci daara ji. ak daaray kaamil. li nga xam ne moom la moom nga koy doxee ak alxuraan ci hmm. boo ñu ci bëggoon a leeral tey yan kàddu nga ñu ciy leeral hmm. daara kaamilu jumaa ji hmm. atum quatre vingt la ma ko suñ jox ma di ko jiite dafa ma daa yónni ndaw ne ko wëral ma njabootu sëñum sëtu ne leen damaa bëgg ko ci man nga dikk ma dugal la ci daara ji nga yoral ma yi kaamil jumaa ji ndax daari kaamil sëñ tubaa mu ngi ko sose woon ca gànnaar ba mu nekkee gànnaar la sëñ tubaa sos daari kaamil dem gànnaar dafa yóbbaale sëñ am yi am gànnaar ñoo ko nekk foola foofee la sëñ tubaa sose daari kaamil jiite loo ko fa sëñ am satu bis muy xëyee dana jàng ñaari kaamil bu tisbaar yi jàngum kaamil bu takkusaan yi jàngum kaamil ba ko tubaab yi jëlee gànnaar andi ko ci yéen jolof jolof ci buuna juróomi at yam fa am sëñ am sutoo ko fa jiite ba mu ko ba ko jëlee jolof andi ko njaareem fan yim am kër commandant moo ko fa jiite bi nga xamante ne nag sëñ Saliou wax da soxna commandant bi nee na ko wayi murid yi ak sikkar Baay Faal yi tax na mënatu la nelaw guddi kon il faut da nga génne sëñ bi ci résidence bi dootu fi dëkk mu dëkk feneen commandant jox ndigal sëñ Tuubaa ne ko seetal aneer yi dëkk bi fu fi soob nga defar fu sa kër dëkk fa ma di la xëy si di seet ba xam loo loo su ngoonee ma dikk seet la ba xam loo yendoo ndax na nga xam ni nekkoo ci sa eh, coobare résidence sawaaye lañ nga nekke kon sa dara wuruma ëmb sëñ Tuubaa door a seet fi kër gu mag nekk defar fa kër da koo jënd ci ñaam moomoon suuf sa defar fa kër féete fa nee bi mu defaree kër gi ba noppi Seydina Muhammadu sallallahu alayhi wa sallam def ko faa gane si am moom fukki fan ak juróom ci kër gi néeg bu ñu yendu tey boo liggéey ñu dem ci beneen néeg ba néegi daj yonent bi ne ko ñaata fan laa fi am mu ne am nga fi fukki fan ak juróom mu ne ko na la wóor ne foo la tubaab bi yóbbu fu nekk njëriñ nga fi gën a yàgge ndax sama fukki fan ak juróom yooyu bis bu nekk am at lay doon ci kon njëriñ nga am fukki fan ak at ak juróom nee na mu door a woo sëñ Amsatu da dikkal kon dem Touba toogal ma fa la ma fa doon war a def ma wax la ko nga dama ko fa defal sëñ Amsatu jóge Njaaréem dikk toog Touba jataay boobu rek la sëñ Saliou wax ne dafa bëgg ku bokk ci nun kooku ko mel ni sëñ Amsatu ngi fi yàlla mag a ngi fi boobu ñu ma mag ngi fi ak ñu ma marcel waaye kuñ ci ko ci wax nga joxe ngànt ba ndaw la accès ci man wax ma ko ko ne na ma ñaanal danaa ko man ba la demee wax ko mu ne ko kooku wax ne naa ko ñaanal dana ko man moo ma ci gënal waaye nag suma ma ko faboon ci biir bokkam rek sant ko ko te jëruma ko ci ñëpp kon dañuy wax ne day sama xarit moo tax ma beral ko loxo waaye kon nekkoon na nekk bu bis sànkam at moom kori ga weeru kori ba altine la la la teroo mu ne ma négal ba altine ji ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru kori bi ma xëy si ci jumaa ja su ma xëy si Abdou samat Bousso moo fa nekkoon booba mun nuyoo la ak moom xam na nga xamante ngeen waaye mu xam ne ci sama ndigal nga fi ñëwee Abdou Samad na ànd ak yow yóbbali sëñ Moxtaar Bousso boo moo yore barab bi nuyaale xam naa ne xamante ngeen waaye bu xamal ne sama ndigal nga fi dikkee nga doo tàmbalee jàng ma nekk ci di jàng su ma xëyee dem bu bëccëgee ma dem bu ngoonee ma dem ba at mi mat màggalu Kazu Rajab ga fa ca tegee at moom àllarba la daa bind loo Abdou Diop mii ci kër gi yore jàkkaay biir këram ñii di ko bindal ma li mu daaree kaamil yi te defal mun tax xaajaxaate ak turam mu nekk ca kaw boo ko bindee indi jox ma ko ma bind ko mu bind ko jox ko gannaaw ba jënd soyee lañ ma fëgg fii ma ubbi mu jox ma leetar kayit wa suñ bi bind ne ma kon su àllarbaa su xëy naa yóbbaale kayit bi dana fa yebal ndaw ku ko laaj kayit bi laaj ko kayit bi ma jox ko ko mu lim daara ja xam ne mu taxaa jaxa tamit laa fi teg léegi ñu ko jiite ku gis aw turam ci biir list bi ci biir kayit bi da xam ne ci yàlla boole koo xam ne ki gis si suuf xam dama laa dama laa wàccee booba am na ñu ma wax ne ma ñi sëñ bi fa soo wàccee kenn ko nekk jox na la ñeenti bërigoy ceeb ak ñeenti bërigoy dugub ne dama laa wàcce ci daara ji dama bëgg nag su ëllëgee su amee soxla bu mu tax nga bañ ma ko wax di ko wax ma ko su dee lu ma mën dinaa ko def su ma ko mënul danaa ci def lu ma mën ma door jógee fi ma daan toog di ko toog tiim tiire bi ubbi ko séddale ko jàng tey siir bi ba tey jii loolu mooy daari Kamil jumaa ji suñ suñ saalihu bi mu liggéey El Hadj fi nekk El Hadj nu àndandoo dem fa moom ne ko noonu kat alali sëñ bi lenu ku moom jumaa ji yaanu moom lu ngi nii wax ko ni mu demee woon mu ne demal jiite ko na nga ko lu suñ Saalihu waxoon du ko dindi. ma dikk di ko jiite. bi suñ El Hadj Baara wàcc la liggéey ñu àndoon waa dem ci suñu Cheikh Matina yi. Cheikh Seydou Mokhtar wax ko ko. mu ne ma demal jiite ko na nga ko daan jiiteel suñu saali woon di ko dindi. daan di ko jiite bi suñu Cheikh wàcc bi liggéey suñu Muntaxa nekk ñu àndoon defaat noonu ba fi mu nekk noonu laal ji doxee. ndigalu suñ Tuubaa laa fi nekkee. wutuma fi jenn daraja ju ñu may jox mbaa sama lenn ah, ni nga ko daal di kaamil ji loolu la ci mën a dama mën a xam ne kii dem na ak wér di jot ko ba mënatu ko wax ma ko ma seet ko ma ko wutal ñu dox ci loolu koo xam ne kii wàcc na liggéey itam naa ko ko wax mu seet ko ko wutal ñu dox ci loolu ba mu yàgg mu ne ma bu ki ci amee ak wérér gi mënatu koo sellal mbaa nga wàcc bu liggéey naa dikk wax naa naa naa seet ku ma doy man ànd moom dikk ba fa ma wax ko ne ko kii mën naa wuutu kii fi jóge ci ak sellal ak tërëbe ak ngor ci loolu lañ yëg sëñ Saliou ba mu wàcc bu liggéey suñ sëñ Muntaxa ñoom ñu fi nekk noonu la nekkee moom. na ne. ñu ngi ci biir Daara Kamil ba léegi. waaw ndax eh, Daara ji Daara Kamil yi nga xam ne mu nekk ci jumaa ji. Hmm. mu nekk ci say loxo. Hmm. ndax mën nga ñoo leeral bis bu set comme ñaari Kamil lañ ciy wàccee. bu subaa bu fajaree. Hmm. ñaari Kamil lañ fiy jàng. suñ jàngee ñaari Kamil. bu tisbaar dañuy jàng benn Kamil. bu takkusaan jàng benn Kamil ñeenti Kamil lañ fi jàng bis bu nekk. waaye nag jaxasoo dafa jaxasoo ndax barabu suñ Fallu dañ fay jàng ab kaamil bu subaa bu takk saa ne jàng fa kaamil barabu sëñ Abdullah barabu sëñ Saalihu noonu barabu sëñ Abdul noonu barabu sëñ Abdul Xaadir noonu man nag day def ne fii nag mag gi damaa jàpp ba su ma dikkee booba jëlaat bi ma ko fa mën a toog moo tax damay jullee fajar ci fii waaja yeesalaat sama njàpp ba nga xam ne suma demee li fekk fukki waxtu du ma fi am soxla ci wanama waxtu tisbaar bi bi ma atum bi sëñ si xamante ne nekkee xalifa laa dem ajjuma daanu tarxis daanu ci karo bi sama moo ci moo demoon sëñ si xamante ne moom a yóbbu hôpital principal fa laa doon fajoo ba mu wéree nag ba xamante ne su ma wàccee buntu kër sëñ Fallou dox diggante bi day jafe ci man su wàccee buntu kër sëñ Saliou itam dox ba dikk day jafe ndax ndax karo bi moo tax mu woo sañ Soye bu sama doom ñëw tuuti sëñ Soye bu di ànd ak moom jële ko ci daara yi indi ko muy ànd dem bu tisbaaree tàngoor bi bu méttee ba méttee damay àgg ci di ma di crise moo tax ma waxtaan ak ñoom ne ko na dikk. ubbi téere bi séddale ko ma ko jàng bu takkusaanee su dikkee ma àndaat ak moom takkusaan fayar ak takkusaan laa laa laa cay demal sa bopp waaye loolu lépp dama ko diisoog ñi ma ko siqal xam ko suñu soin bu sama dooma te jàng na ci jumaa ji ci lañ aas ba am lañu réer waa jumaa ji yëpp xam nañ ne li may doxal na koo doxal moo tax noonu noonu la jumaa ji jumaa daara ji kéemante ne daara jee nag bi sëñ Abdou Lahad nattee fee jox ko sëñ Saliou Mbacké dama ko sëñ Saliou jox ñeenti pàkk yu sosoo jox ma lu ma ñaar fukki loo yu ci sos ne ma ñeenti pàkk yu sos ci tali bi def ko sa kër bopp waxuma la terrasse waaye nañ ko étage paquet yi ma jox ko taalibe yi ñu dëkk ko 2004 laa defar lu panaab juróomi étage wan ko sëñ Saalihu fekk booba gone yi ma jàngale itam am na ci ñu jàng ba bind juróomi kaamil ma boole sama addiye ba bayeegu ma bay nag sama ëddiyee ma boole jox suñu saaliw waxal ko plan bi ne ko daara suuf sang ma joxoon pàkk yi ma joxoon naa ko def suma kër bopp daara jàngale alxuraan laa bëgg njëkk a def plan baa ngi nii ñaanal ma ci ma daamali ko 2004 mu raase 2006 ma kuule ko yàkkamti tax ma daal di génne do yuré maasale itam dafaa jàngale léegi étage naa ko kaw suuf xanaa ba mu ñetteel ba la yëkkatee gudd waaye bi ci suuf dama ko def comme mu nekk comme mbaar ñu defa toog di jàng ba ci des ñu yëkkati ko ay néeg logement yi nekk fa on naa ko doxalee boo dikkee ci kër gi doo fi gis genn gone fekk nañ gone yi ma doom yi ma jur man di muñu fenn di tukkee ka jaayaatoo ka def yow ñoom ñëpp nga ci daara je ma jàngaleen alxuraan xam-xam ba ñu nekk fa di jàngale ku jàng alxuraan ba wàcc war a daal xam-xam jëfaru na fi te suñ tubaab yooyu ñu jàngal la ko nga tàmbali di bind sa ëlluwa di beqe ñu di la ngay bind sa kaamil loolu la ñuy def fayu ku ci benn dërëm itam na gannaaw man sëñ am sët bi fi nekk jàng alxuraan ak jàngale ko la ma féetale woon bi mu wàccee liggéey suñ sëriñ laa tàllale loxo mu féetale ma ci noonu suñ sëriñ damaa dox juróom juróom fukki ko ne mbaa ñeent fukki ko ne yu tuuti ma dalal leen ba di leen jàngal ba ñi ci alxuraan doge si ñoom ñu ñi ci des itam fer nañ ijji ba mën a jàng waaye màgg nañu itam ba mën a liggéey mu jël ñooñu yóbbu ca daara ja ñu àggale fa seen alxuraan ak tarbiya mu indil ma ñeneen loolu lan séq maag moom ba ni wàccib liggéey fa gannaaw nag ci loolu laa làggi fayiku ma fa kenn ab dërëm ku bëgg sa doom jàng te jub am indi sa doom sama sama gone du génn di yalwaani ci mbedd mi du taxawaalu fenn waxtu mu ne seenu añ ak seenu reer day doy sëkk ak seen mburu ku fi say mbokk dikk nag may la ñaar fukki dërëm mbaa lu la may nga def ci sa gaal boo xëyee boo jotee su mburu bu dee bu dee gone gu ndaw ñetti gone yi nag ak mburu la bokk bu dee gone gu mag gone yu mag yi ñaari gone yi rek ak mburu la ñuy bokk ma fi mu nekk ma fa nekk bu ma xëyee fanweeri mburu danañ leen ko jox dama abonné ci pour mu xëyee jox leen ko muñ njël di jàng buñ julee suba ba noppi ki dem jëli mburu jël jëli mburu indi ñu ndékki dama jënd café ak suukar saakoob suukar café tegal leen fi buñ jógee jël kay a ngi segg kafe gi buñ jullee ba sëlmal ñu noppi naan seen kafe loolu la ñuy liggéeyee police bi ci wetu daara ji dama faa dem ni leen gu ngeen si mbedd mu yor pot na day wër di yelwaan bu laaj leen ko bu dee donc daal si mu te xajaxata laa dëkk du maal ma man sama gone génn di yalwaani lay bañ mm-hmm. kenn du ci yalwaani ndax yalwaan moom ku ko ku ko defloo gone yaa ko sàcc loo yaa ko def loolu lépp mm-hmm. te bëgguma kenn jege jële fi man jukki ju ñaaw mm-hmm. moo kenn du fa jóge di yalwaan tam mañ koy doo tàmbali am na góor su demoon ci kër di yalwaan gis fa lu mu ragal boo ca la jógee siburu ma ne ko nag koo fekk ci këram yaa ko tooñ mbedd mbedd mbuura ku toog ci daara ji bañ a génn fenn dara du la jot loolu laa mën a garanti waaye mënu maa garanti mbedd meeg koo fekk kër fekk nit ci këram loo ko waaye yëkkati jox ma ci sa coobare nga ko liggéey di ko joxe waaye son laajuma la ko sontuma la ko yàlla Sëñ Tuubaa laa ci yaakaar yaakaaruma ci mbindeef nee mu toll dërëm bu ma ci def mu ne xam naa xam na ma dikkee benn dërëm bu bu bu dugg ci ndax laajuma ko kenn te bokkuma ci jaxasoog nguur gi bañ di ma defaral samay daaraaka def yow xaw ma kenn ci ñoom ku ma la tax ma xam la yaa ko dox fi ci man waaye man doxuma ko ci yow te du ma politicien sëriñ bi jàngale laa ne noonu la noonu la daara jee doxee. ba léegi yéen a ngi ànd ak sëñ Amsatou Diakhaté xalifa leen di nga xam ne moom la ñuy topp ba léegi a ngi ànd ak Saxum Touba ah, ginnaaw tey boo ñu bëggoon a leeral ci biir daara ji. Hmm. ndax daara ji am na ay soxna yoo xam ne ci jigéen yoo xam ne ñu ngi jàng ñu ngi jàng. déedéet jigéen du fa jàng. jigéen du fa jàng. jigéen léegi tamit daara ji dañu li nga xam ne moom lañu ñuy laajaat ci daara ji mooy. ndax daara ji daa am ñoo xam ne seeni waajur ñi nga ko jox ñoom dinañ dinañ am loo xam ne leen loo xam ne ñu ngi koy ñëw di ko saytuwaale ci biir daara ji ngir ñoom di yëkkati ñoom tamit seen am amoo bopp di la ko euh, jàppale si li nga xam ne mooy daara ji nga xam ko ci def yaa ko def ci sama bare man laajuma la ko mhm. moo tax ma du internat mhm. kenn fa yu muñ ci dërëm mhm. du internat ngir yàlla ak yeneen bi sëñ Tuubaa laa koy defee sëñ Musu ci la ma yaroon sëñ Saaliw mottali yar bi moo tax laajuma ci kenn dërëm yàlla gi ma ñu suturaat nag wax dëgg yàlla sant naa ko baax sant naa leen bu baax a baax a baax ndax ko fa dem da nga ne xam ne la ma fay daj fii nu toll bis bu xëyee ñaar fukki kilo ceeb dañu ñu ko sóoral ñaar fukki juróomi junni la ñuy ŋàbb dem marché dugg ci ndugg mm. ko fukki kilo dugub ak fukki kilo mboq moom la ñuy defar cere ñu di ko reere te yore lu ma ci kenn bu dërëm yàlla suñ tubaa nga dëgg laaju ma ci kenn bu dërëm ku fa dikk lu gën a néew ay bis gu nekk mbaa fukki fan danaa fa yóbbu gàtt mbaa aw nag ñu defar ko gone ya fa toog di jàng ñu yëkkati na ci loo xam ne dañ ko jox ñu lakkal ko seen bopp lekk li ci yónnee ko ci kër gi toggal leen ko ñu yóbbu lekk gane gu fa nekk ku ne xam nga ne la ngay mën a am ca daara ji amoo ko sa kër baay mbaa amoo fa ko dàq loolu ñëpp seere na ko. kenn ku ne ku ne ku alxuraan ku ne jaxate daal ne alxuraan. Hmm? mu doon ku ne alxuraan. Hmm. daal ku ne jaxate daal doon loo xam ne ab cër la buñ ci am ci bu rëy rëy ci alxuraan. xar xar xar baaxul suñ tuba xar xar baaxul yàlla suñ tuba la. Hmm. loolu moom la. noonu. dégg naa. masata binte dun mi jur madu asta mu jur isim satu ca jaay jamono ñetti téeméeri dong ak fukk ak ñett moo nekkoon daaraam di ko xëyal bisu set kon xam nga ne njaxaate moom loolu yàgg na ci ñoom jaxasoo gam jaxasoo woon kii mbooloo mu bari mu wut ko moo tax buur yëmu si xaloon yëguñu ko woon moo tax itam pexe ma ko fi jege ñoo ko def ndax dañoo fab seen doom jox ko ko mu jàngal ko alxuraan nangu lool ba mu kooka makaana dem lu ñuy dund ba xam booba ba kilifa gu nekk da am xeeti galaaj yoo xam ne yii ku la fetal du del kooke lañ yar mu dem nangu gam nangu xam naa tax suñ ba xamal ko lu bari ci boppam ba mu xamee bal ba ngay booleeg lañ koy booleel ba mën ko kii ñu fekk ca daara ca ca tool ya bëgg a fab doomam ju jigéen doom ju jigéen ñu bañ laxasoo laxasu ci baayam duur ko bal moo tax ñu ne mësata binte dun wetaar wa desee calawoy gisuma ko waaye reem ju neex la agge suuf loolu tàggkat yi daan nañ ko tëgg suñu suubaa dikk jaxasoo di dem kër Mamadou Asta ba xamante moom jaxasoo moom bi sëñ Mamadou Asta jébbaloo mu ne ko ndax doom yi sëñ libaas yi nga yoroon am nga ci doom mu ne ko waaw am naa ci doom wax ko nu mu demee mu ne ko bu ëllëgee booy siyaar si ko ma gis ko ba mu siyaar si mu ko sëñ bi gis ko téye ko fan yim ko fa téye ma yaakaar naa lool ne bu dul Touba gii di Darou Salaam ndax Mamadou Assa moom ca ca Mbacke Kajoor ba sëñ bi dool woote ca la jébbaloo mu ne ko nag damaa bëggoon nga bàyyi ko fi soo ko bàyyoon dana baax ñaan na ko mu jóge taxaw Mamadou Assa agaat suuf suñu mosu dugaan nettali ma di ko dégg mu ne ko jox naa la ko jox mu lax ci xol bu sedd gu yi xeme mu ci moom lu dul yowal xiyaamati ma seen nga jiitu mu topp ci sa gannaaw ak njuleel gi tax doom di doon bàyyim sax jëbalaal naa la ko soo la ko toppee baax na su ko toppul gàll naa ko ko lii la Mamadou Asta wax bi muy jëbal sëñ Sëtu naa la ko nettali ma di ko dégg Moodu Xëyri sama rakk mi daan kii am na ci band a alxuraan yi bande yi mu daan joxoon ne daan ko xaale hmm. kon sëñ Satu nee na ci juróom-ñetti atam ñëw ci sëñ Tuubaa delluwaatut mbaakol xanaa bi nijaayam sëñ ma ñaaw wàcceeb liggéey nee dem na fa jaali ko bi bàyyam wàcc bi liggéey dem na fa jaale ko ñaari yoon lii dafa leen baakoon suñ Tuubaa bi muy dem gànnaar da ko booleeg maam Thierno da leen yabal nee na sëñ suñ am satu sëñ Amar Fall Mbàkke sëñ Seex Coro magi sëñ Balla Coro ñi da leen boole nee dem leen ci la bindi faw yoon ci alxuraan ci la barkeel xaneka ah, su ngeen ci jógee damay bëgg a tukki tukki bu sore sëñ maam Thierno daa leen booleen fu ngeen ko dégg dem leen fekk toog fa nekk moo ñëw moo tax ba bañ jàngee ba noppi ti la mu dellu siwaat fi maam Thierno nekk maam Thierno mi sëñ bi demee ci géej gi ba ñibbisi si ma wàccee Ndakaaru la yónnee ci maam Thierno ne ko fekk ma ndar jóge naa ba gouverneur bi ma fi jëlee woon ca boobu laa jëm xam ne dil si ma fa mooy màggalu daaru yow ni su sax baan mhm. maam Thierno bis biñ daan bis bi wàccoonum liggéey mhm. la sëñ Modou Awa Baan tàmbaloon di ko màggal mhm. bi sëñ Fallu nekkee xalifa la leen ko tere ne ko bisum naqar de su noon bisum mbégte yow maam Thierno yow sëñ Modou def leen defal seen màggal muy bis bi maam Thierno fekkee Sëñ Tuubaa Ndar bisub nisfu Saxbaan mooy bisub mbégte ci yéen mu tax moom waa Daaru tàmbali di ko màggal noonu ba muy ba mu ko waxee am ko doon doy ba noppi da ko ne bàyyi fi am satu sëñ moom ba sëñ bi ànd ak moom di dox ci réew mi ba dellusi Daaru Salaam ngan googu maam si àndana doon ganale jóge mm-hmm. digg deeru ma naan nekk fi moom ba tubaab yi nekkaat ci pexe ba jëliwaat ko fi yóbbu ko gànnaar ba ñu dem ñu àndaat teqali ko wuñu ba bi sëñ bi ñibbisee Tuuba mm-hmm. yàlla defal leen xaas tam nga mm-hmm. di taalibe ngay doom nga mën a doon kenn ko xam nga ne suñ am am na ci sëñ Tuuba ci amuta xam na ci suñ tubaab itam loo ci xamut loolu xaas la ñu ko yàlla defal. loolee moo indi lii ba ma ne nag ci sama xel mu gàtt. naa ne ku mel ni sëñ Abdou Lahad suñu Salihu suñ Suwaybu ñetti doomi suñ tubaab yi suñ tubaab suñ am su leen joxoon. moo leen dalal baax jàngal leen bañ mokkal mu jàngal leen téere xam-xam yu jëkk yëpp sëñ bi ñëw ñibbisi si Tuubaa mu boole leen sëñ Moodu Musaa jox leen bu doon ci tubaab nag professeur diw sàngam ba ingénieur diw sàngam ba savant sàngam ci école sangam la la génnee danañ ko mën a naanal bu ba ñëpp xam ko may itam loolu laa jublu may itam moo tax ma tabax daara jee def ko nu ko def noppeegu ma koy doxee ni ma ko doxee ni ma ko ni bu yàggee dana ma sa dem loo daara jële luñ fa jàng ci alxuraan sëñ Cheikh Jaxate mii mu um, daan ànd ak suñu laat moo ma jàngal alxuraan man ma ba may defar daara ji damaa dem ci téere yi kam yi mbindee suñ abdulaat fii àbb ci téere yóbbu ko ndakaaru sotti lu ko fukki téere indi ko ma yebal ndaw Saalum Joobe marché boobu marché boobu ci gannaaw kii nu mu tudd Samba Diallo bi laa fa yebal. wutal ko kayitu arafoore mu yettal ma fa juróom-benn fukki alluwa andil ma waaye tàmbalee daara leew kayit yi jeex na daaw ba sëñ bi laa fa baatub téere mu bind mu kiyaat ma ko mu balastik ko ba nga xamante ne dafa mel carte d'identité yi du yàq du gaaw a yàqu moom la gone yore mooy dama bëgg gone ko fa jàng tuyaaba ja mu bind ko ci téere yiwub sa am satu ak téere yiwub sañ si jaxate man ma bi rek nii liggéeyal su boobaa nu neex def ma mm-hmm. Mm. Mm-hmm. noonu la noonu daara ji tëddee. kon gannaaw ki ñëw na. mbay boo dem ba ca daara ja. ma nga gis. soo dee filmaate foofa filmaate ba dem dem. waaw bala ñuy àgg ci eh, loolu ku xam ku gis xam ne eh, liggéeyu daara. ak kawe ga nekk. ba pare boole ko eh, tey jii nga yëkkati lu lu lu bari ay million yu bari def ko ci daara. ba pare te lëjoo ci kenn ab dërëm loolu. tawféex ja ca nekk ak kawe ga ak ah, yàlla yaakaar lu baax rek lépp rek bëgg su ëllëgee mhm. yàlla jox ma suma cër bopp moo xam ne mii mhm. lu ma ci bëgg a liggéeyal Sëñ Tuubaa ko laa ci soxla waaw loolu laa ci lay dina neen mhm. ma léegi dañuy dañuy ci daari kaamil ndax daari kaamil ki nga xam ne moom lañuy jàngee fii ci eh, jumaa ji kaamil bi ndax boo fa ah, waaw delluwaat ci daara ji suba suba jaaree dix heures. Mhm. neuf heures demi. Mhm. soo teel dikk. Mhm. neuf heures demi laay ñëw si yaay ñëw fii ci kër gi. danaa fi toogaat trente minutes. su ma fi kenn fekkut ku ma gàllankoor. damay dem ca daara ja. fa laay yendu. ba jullee fa tisbaar. ndax gannaaw tisbaar gi léegi sama doom a ngi dem. su ma fa jullee jóge fa dikk ci kër gi. añ. quatre jot ma dem eh, jumaaje jàngaat kaamil bi def si yaari six yi laay nekk ci kër gi six yi ngoon laay wàcce ci jumaa ji dikk fanaan ba six heures suba mu jóge fi demaat demaat jumaa ja dix heures ma dem daara ja noonu la demee. ginnaaw loolu jàllee yéen a ngi àndaate ba léegi Saxum Touba ndax li nga xam ne moom itam bëgg nañ mu leer ci ñi nga xam ne ñoo ñoo ñuy bàyyi xel. li nga xam ne moom tamit moom lañu ñu bëggoon a bàyyi mu leer ci ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan. muy ndax euh, daaray kaamil ñi nga xam ne bëggoon nañu ñoo xam ne tey bu ñu bëggoon a dégg sa wax ji. bëggoon a bokk si ñi nga xam ne ñooy limu ñuy jàng si alxuraan ci biir daaray kaamil si. ñooñu tey bu ñu bëggoon bu fekkee dañ lay. daaray kaamil seet si ba bëggoon faa jàng si tey. ba fi suñ fa luy nekk. yooyu da gis koo xam ne dégg gii mu la dégg mën naa tax mu takk ndigam daal ni man damaa fas yéene bokk ci ñuy jàng kaamil daara yi daara kaamil yi sëñ Tuubaa ba muy nekk gànnaar la wutoon ñaar fukki nit ak juróom ñett ñu yoral ko alxuraan di ko jàng suba ba cëg ngoon loolee bàyyiwu ko boo déggee sëñ bi nekk daari kaamil la jublu hmm. kaaf gi mooy ñaar fukk xaa gi mooy juróom-ñett boo déggee suñ wax ko ci xasaay rek xamal ne waa daal di kaamil la jublu mm-hmm. ay secret nga ci yeneen itam yoo xam ne nag moom mm-hmm. jërul ma di ci àgg yow moom <laughs> mu doon liggéey bu am solo. Mm-hmm. waaw mu doon liggéey bu gor su dub jullit su dub taalibe xam aqi sëñ Tuubaa parce que yéen a liggéeyal moom la fa soxla du jógee ko fa dugg bëgg a dugg mën faa dugg sëñ bi jublu nga bokk ca nga bokk ca bi ma ko jox daf ma ne woon koo xam ne kii dem na ba am wér di goo xam ne mënut ko sellal wax ko ma seet ko ma fa teg koo xam ne ki wàcc na liggéey dikkal wax ma ko ma seet ko ma fa ni dox ci loolu ba yàgg mu ni ma koo ci gisati mu demee noonu may naa la nga seet ku la doy mhm. koo xam ki mën na koo sellal mhm. nga ànd ak moom dikk ba fi man wax ma ko ma dugal ko mhm. ku wàccub liggéey di gën man wax ma ko ci la daan ndox bi nga xamante ne si sel wàccin ma liggéey nag dama xam ne man teel bi dong laay doon El Hadj Baara dikk na xaw naa soppi loola moo tax suñ si xamante ne dikk moom itam xaw naa soppi loola suñ mën taxaa dikk suñ mën taxaa da yeesalaat na ndigal la moom waaye may itam danaa jombale nag dugal fi koo xam ne kii bëgg xaalis ak bëgg addina képp mooy tax ma di ko fa dugal loolu jombale naa ko sama bopp du ma ko def mukk ku ma ba wax ko boo xoolee da gis ne kii kat duuralu ma ko. sama jikko rek li bu la xale ma bëgg ma ma na ko. maanaam tànn ma fa sama bopp nag suñu saali ma fa tànn. noonu la da nga dem. bu ñu bëggoon wax li mu daara ji. Hmm? tolluwaayu li fa nekk ci ay tout tànk yoo xam ne ñoo ci biir daara ji di sàkku xam-xam. ci ca sama daara loolu moom xam nga man sama farlu daa kii. Hmm. mbooloo nga fa nag dana am dana am jamono yooyu dana bari dana am jamono yooyu dañuy wàññi nga xam ne kii jàng ba mokkal wàcc ay waajuram bëgg ko yóbbu ci beneen jàng dafa bari léegi daa xew bari na fa lool moo tax dana am daa jamono di sëq am jamono yi day mel ni dafay mel ni garab gu ruus dafay nekk dootu bari waaye bu doxee tuuti itam ñeneen dikkaat daara lay wutal ñu ñuy jógee day am ñeneen ñu dikk hmm. mooy doxeenu daara. xam nga léegi nga am daara li nga xam ne moom la ñu déggoon ci ay waxtu daa mel ne ci Hmm? ñu fas yéene àgg daara ja rek bu hmm? ko defee daara ja bu ko hmm. defee ñu àgg daara ja rek waaw bismillah moo fa nekk ci ay kàddu ñu gën ñu ko leeral bu baax a baax waaw baax na bismillahi rahmani rahim iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insana min alaq اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن مرجعا أرايت الذي ينهى عبدا إذا الله لا اله الا هو لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا وما لكم في المنافقين فئتين والله اقسم ما كسبوا تريدوا ان تعدوا ما ضل الله ويدي اليهم فلن تجعلوا سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا وتكونوا سواء فهذا تقصوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فان تولوا فاقصوا واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نسيرا الا الذين يصلون الى بينكم وبينهم ميثاق naw jaaw commencé sudurukum aw yuqaatilukum aw yuqaatilu qawmum walaw saa allah walaw saa allahum sallatu alaykum fala qaatilukum fa inhum tasalukum wa lan yuqaatilukum wa ankum wa alqaw ilaykum salam ma jahala allahu lakum alayhim sabila satajiduna akhirin yuridun ay yamanukum wa yamanu qawmun kullama ruddu ila alfitnati urkusu fiha fa in lam yahtasilukum wa yulqu ilaykum sabila wa yulqu ilaykum salam wa yakfu aydihim faqsu waqtulu wa istaqibtu wa ulaikum jahanna lakum alayhim sabila satajiduna akhirin yuridun ay yamanukum wa yamanu qawmun kullama ruddu ila alfitnati urkusu fiha fa in lam yahtasilukum wa yulqu ilaykum salam wa yakfu aydihim faqsu waqtulu wa istaqibtu wa ulaikum جهنم لكم سوائب سلطان بنا وما كان لمؤمن يقتل مؤمنا الا قد ان ومن قتل مؤمنا قد ان فتح رقبه مؤمنا وديه مسلما لله لاله صدقه فان كان مقام عدو لكم هم يطهر رقبه مؤمنا وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فريق مسلم من دار وطهر رقبة وطهر رقبة مؤمن فمن لم يصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وقرب الله عليه ولعنه وعض له عذابا حسيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون أرض الحياة الدنيا فإن الله مقام كثيرة كذلك كل من قال الله عليكم فتبينوا إن الله كان ما تقولون كبيرا لا يستوي bismillahi rahmaani rahim subhaana lasi atare bi xamdihi laylan minal masjidil haraam ilal masjidil aqsaa lasi baaraknaa loolu nuriyahu min aayaatinaa innahu huwas samiiul basiir wa aataynaa Muusaa kitaaba wa ja'alnaahu hudan li banii Israa'iil alaa tattaxizu min duuni wakiilaa zurriyyata man hamalnaa ma'a Nuuhin innahu kaana abdan shakuuraa wa qadaynaa ilaa banii Israa'iila bi-ghadabin la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'luuna uluwwan kabiiraa fa idaa jaa wa'du uuliyahum ab'athnaa 'alaykum ibaadan lanaa ulii ba'sin shadiid fajaasuu khilaala deer wa kaana wa'dan maf'uulaa summa radadnaa lakumul karrata 'alayhim wa abadalnaakum wal yawma wa ja'alnaakum aksara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falahaa fa idaa jaa'akum talaaqii liyasuvvuu wujuuhakum wa liyadkhuluu masjidan kamaa dakhaluuhu awwala marratin wa liyutabbiru maa 'alaw tatbiiraa hasiya rabbukum an ya'lamukum in khiftum fitnatan wa ja'alnaa jahannama lil-kaafiriina 'asiiraa inna haadhal qur'aana yahdii lillatii hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'miniina allaziina ya'maluuna as-saalihaati anna lahum ajran kabiiraa wa anna allaziina laa yu'minuuna bil-aaxirati تنالوا حسابنا لما ويده الإنسان بالسر دعاء أو بالخير وكان الإنسان حجولا وجعلنا الليل والنهار آية فمعونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان نزلناه طائره في فيه نقل ونخرج يوم القيامة كتابا يلقاه منصورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من يهتدي فإنما يهتدي لنفسه بركة بركة بسم الله ومن ضل فيما يدعو ومن تلف فيما يدل عليه عليه واسع واسع يستقر وما كنا محسبين حتى نبعث حسن رسولا وإذا أردنا أن نخلق قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها قالوا قد دمرنا تدبيرا وكما هلكنا من يقر المجنون وكما بيك بسورهم بعد قبل بصيرا من كان يريد الحاجة حجلنا له فيها ما نساو لمن نريد ثم جعلنا له جانب إسلام مصوما مدهورا ومن راد الله خير وسعي إلى سيئون فأولئك عصوا مسكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من حتى يرفقوا ما كان حتى ربك محصورا انظر كيف انظر كيف فضل البحر ولا بحر ولا اخر اكبر درجات واكبر تفضيلا لا تجعل مع الله الها اخر فتنقل مصموم مقصولا الحمد لله الكريم سلم على استفاد بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني